ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di am mbégte di dajek yéen ci seen jotaay di fàttalkunte diine yàlla ak diine bi nga xam ne suñu borom subhaanahu wa taala jaare na ko ci ndawam muy seydina muhammad sallallahu alayhi wa am lu mu tegoon ci loxoom ngir mu tasaare ko ci xeetam bi muy alquran ah, téeréem boobu nag lañu fas yéene ànd ak ki nga xam ne moom mooy imam Muhammad Muntaka Sakho muy imam ci Staten Island New York di ci ànd ak ah, soppe yi ñu ànd ak ñun teew fi ngir mën a faram-fàcce lenn ci téeréem yàlla bi dañ ci taamu woon nag jël xaaju suuf bi bi maanaa juusa amma daxal ñu ëpp ci ñuy jullee eh, ci saar yooyu lañuy faral di tibbee ngir mu mun ñu dimbali ñu xam lan lay yàlla wax ñun donc fadilatu imam ñi ngi lay jox kàddu bi di la wax ahlan wa sahlan bismillah bismillahi arrahmani arrahim salli ala sayidina muhammadin alfatixi lima ugliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ñu ngi fas yéene mbokk yu teddi ànd ak yéen ci duruus ak tafasir yi ñuy jéem ci téere yàlla bu màgg bi di alquraanul karim alladi laa yaatihi albaatilu min bayni yadayhi wala min xalfihi tanzilum min xakimin xamid jamono yi nga xam ne ci lañuy amal jotaay jamono gënu ko askanante ak jàngat alquran ndax ci jamono yi la sama borom tabaraka wa taala tànnoon ngir wàccee téereem bu tedd bile ci yonentam bu tedd ba sayyiduna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam muy jamono ju tedd di weeru koor xam ngeen ne weeru koor yàgg na fi te kenn joxu ko dayo biñ ko jox gannaaw dikkuk yonantu sallallahu alayhi wa sallam kon teddaayu weeru koor mi ngi aju ci teddaayu téere bi ci wàcc shahru unzila fihi alquran hudan linnaasi wa bayyinaatin minal hudaa wal furqaan weeru koor teraangaam ji yépp kat alquran ji ci wàcc moo ko ko may xëy jaadu kon alquran jooju ñu di settantal ndax loola tax ñu wàccee ko kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaru ayaati waaye rawatina ñu di ko settantal jamono jim wàcce muy weeru koor ñi bu weeru koor ñëwaan seenu xër ci alquran du yemoog weneen weer wudul weeru danañ nettali ci seydina shafii rahmatullahi aley ne daan jàng juróom benn fukki kaamil ci weeru koor ana ñun ci Shaafi'i raxmatullahi war nañ ko setantal te setantal du am mukk tànk xamuñu baat yi li mu firi li ñuy firi ak ci yan contexte lañ len wara firi looloo tax ñuy jéem incha tabaraka wa taala ci jotaay yi ñuy am ak yéen firi baat yi nga xam ne ñooy baat yi wàcc yéema wax dara ci lenn ci maani baat yooyu le ndax Seydina Ali fa doon wax ne alquran dafa bari anam na nangu anamam kon loo jéem-jéemit dangay def li nga mën rek waaye boo noppee day mel ni puso soo dugal ci géej génne ko lala topp mooy langa def mbaa matu ko la ca des mooy alquran waxi yàlla la ni nga xamee ne mi wax wax ji mënee su ko wala yuxituuna bihi ilman naka noonu it waxam mone su ko peeg a wala yuxituuna bi cheyin min cilmihi illa bi ma shaa suratu naba ji nga xam ni ni ko sëriñ pap yal nañu ko yàlla boole fayal waxe lañ bëgga tàmbale tafsir bi saaru saaru doy waar la tur wi rek wane na ko suwaru makka dañuy tënk waaye toujours dañuy jëmale message yi aju ci yàlla tabaraka wa taala yi aju ci tawxid yi aju ci dee ak dekki ak yi aju ci dajeg borom bi tabaraka wa ngir mu xisaab ak yi aju ca lay topp ci xisaab dem safara la yal nañ ci yàlla boole musal dem aljanna la yal nañ fa bokk dëkk ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suuratu naba saaru xew-xew bu rëy nëba bokkul xabar xabar mën na nekk lu ne Seydina Musa ba mu soxlawee fu mu jëm ku ko ju ku ko yombalal ku ko gindi dafa wax waa këram may leen ma ma dem fële xëy na ma am fa xabar kuma won yoon mbaa ma am lu ñu jaaro bi xabarin sa atiku minha bi xabar aw jidwatin min annaar wata xabaar mën na nekk lu ne xam ne du soxla sax jóg waaye nëbët nag dafay soxla jóg buñ ne dëkk bi dafay tàkk ba ñu ngi évacuer nit yi kenn dootul amati euh, sagoy seetaan télévision loolay nëbë nëbë nag ki koy peg mooy ki yegg ca njubaxteenu xabar mooy ki dëñ kumpa te ko koy yàlla moo tax mu wax ñu ca suratul fatir wala yu nabbiuka nabar naba ñëw du la xamal mithlu xabiril lu dul ki dañ kumpa wala ku mel ni ki dañ kumpa ki yàlla tabaraka wa taala suratu naba saaru màkka la làmboo ñeen fukk wala ñeen fukk ak benn ci laaya làmboo téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñeent ci baat boo jógee fatiha baqara ali imran nisaa maida lanaam laaraaf lan faal daa fekk ne mooy soixante-dix-huitième numéro ci saari alquran yi mi ngi wàcc gannaaw suratul maarij saala saailum bi adaabin waaqiin lil kaafirin nga xam ne maarij gi mu wàcc saaru xuppe la ca la tàmbale wim topp ci moom ci toftalit muy suuratul mursalaat saaru xuppe la ñan lay xuppu almukaddibuun te alquran dafa am tanasub almukaddibuun mooy ñi nga xam ne non seulement gëmuñu waaye dañu jóg di def propagande pour ñeneen ñi bañ a gëm yàlla xupp leen nag xupp yu rëy ci mursalaat mu mel ni xupp yooyu la yàlla jël beneen uslub di ko continuer ci saar wi di naba di suuratu amma yatasaaluun xuppe sama borom ñetti façon la ci indi ci alquran xuppu awnit nit maanaam tëkku leen pour écraser leen ñoom ñëpp ba ñu fi jeex tëkku écraser ñi ko moom mooy xeet yi jiitu xam ngeen ne yàlla alak na aad ba mu jeex alak hamud ba mu jeex alak qawmu nuux alak qawmu lut ni ngeen ko xame loolu ba yonentu dikkee sallallahu alayhi wa sallam comme nabiyur rahmati la yàlla dig na ko ne sa alak sa xeet duma leen alak benn yoon ba ñu jeex kon ñaari xuppu ñoo des muy xuppee dekki dajeek borom bi mu xisab dana ñëw ci saar bi ak xuppeeg mbugal ñi nga xam ne xamuñu liñ war a def mbaa biñ ko xamee it taxawuñ ci xamuñu ko mooy jéemuñu ko xam mbaa biñ ko xamee it taxawuñu ci buur ne amma ci lan ci ban mbir an ayi cheyin yatasaaluun amma cosaan li an ma la woon ma ñu daldi idgham nun ga ca miim ga muy amma ñu dagg ko muy amma wa ma fi listifhami in jurrat xudif alifuha wa awlihal haa in taqif moo tax kon amma moo doon cosaan li gannaaw bi xadaf amee ba wax nañ ibnu kathir jàng na ko waaye amma mooy jàng yi nga xam ne ñoom lañ xam amma yatasaaluun ana lan lañuy laajante Quraysh lan lañuy laajante yéeféer yi lan lañuy laajante mu mel ni buur moo laaj moo tontu ne ani naba il azim ay yatasaaluuna ani naba il azim ñu ngi laajante xew-xew bu mag bu màgg bi annaba rek wax naa leen ne mag lay firi waaye mu yegg ci al azim xew-xew bu rëy bu mag bi maanaa yàlla laajul pour xam li ñuy laaj waaye dafay laaj pour rëyal mbiru ñi nga xam ne ñooy laaj ci doyadi ak ci kéeféer amma yatasaaluun ñoom de ñu ngi laaj an naba il azim waa ana luy nabawul azim ñi ne mooy alquran ji yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam dikkee jëmee ci boromam moom la ñuy laajante naan mbir mi lan la dëgg laam du dëgg ñi ne déeréet an nabawul azim mooy yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam ci boppam ndax nubuwatu gi muy woote dëgg laam du dëgg ñi ne déedéet annabaul azim mooy yowmul qiyaamati ibnu jarir at-tabari nag rahmatullahi alayhi nee na yooyu yëpp la lambo amma yatasaaluuna an annabai alazim alladi xew-xew bi nga xam ne hum ñoom fiihi muxtalifuuna dañ caa wuute jullit yi saxal ko yéeféer yi weddi ko kon bañ ca weddee wuutee nañ ca ak ña ko saxal ñoom gëmuñu ko ba pare waa ciy laajati kon moo tax sama borom tontu leen ci logique bi ñu laaje e kalla no kalla déeréet kalla dëkk sa yaalamuna gis nga xal na nañoo xam mooy li ñuy weddi ci mbirum dëkk ak xisaab dañuy janoog moom thumma kalla topp dëgg sa yaalamuuna danañu xam muy ñaareelu tëkku bi la ñuy weddi ca mbugalum safara ak ya ca nekk danañ dajeeg moom kon kalla sa yaalamuun wax naa leen ne tëkk bu njëkk ba moom nekkatut yàlla du alak xeetu yonent bi yëpp sallallahu alayhi kon ñaari tëkku yooy des dekki yàlla xisaab kallaa sa yaalamun ak tëkkub gannaaw xisaab ña yeeyoo mbugal yàlla buñ ci bokk mu mbugal leen mooy thumma kallaa sa yaalamun léegi nag dana la indil ay mbir yuy wane ne yi dana dikk ak lii nga xam ne wax naa ne moo nekk dara mënu ko dindi waaye barahin alqatia lay yu leer naññi ñu ngi ci seen wet ngeen di leen gis bés bu nekk walu tax nag du ngeen waaru wur ne alam najal xanaa du nun ñoo def larda suuf mihaadan mu dib lal wal jibaala doj yi awtaadan ñuy ay daaj wa na wa xalaqnaakum ñu bind leen azwaajen ngeen di góor ak i jigéen wa jaalna nu def nawmakum seen nelaw subaatan muy noflaay ñeel seen yaram yi dagg leen ci seeni activité ba cëkk wa jaalna nawmakum subaatan wa jaalna nu def layla guddi libaasan muy koddaay wa jaal na nu def naxaara bëccëg maashan muy waxtu wut dund wa banay na nu tabax fawqakum ci seen kaw sabaxan juróom ñaari taax yuy asamaan shidaadan yu dëgër wa jaal na nu def siraajan jant bi muy kandiya di làmp wa haajan bay aji tat ji takk wa anzalna ñu wàcce minal mu'siraati ci niir yey woy nal ndox ñu wàcce ma an ab taw hëjjaajan bay sotti waakoon pour lan li nuxrija ngir nu génne bihi ci sababi ndox moomu ñu wàccee xabban pepp wa nabaatan ak gàncax wa jannaatin aki tool alfaafan yuy woy tegloo seetal sama borom tabaraka wa taala yi mu tudd alam najalil arda mihaadan ku nekk ci yéen am nga lal waa ana kan moo am lal bu mel ni lal bi leen yàlla jox muy suuf bu la neexee tëdd bu la taxaw bu la neexee dox bu la moo ne su ko neexoon mu defee ko neneen alam najalil arda mihadan wal jibaala xanaa du ñoo def doji awtaadan ñuy ay daaj gis nga lardu muy la terre ci arab fimel la jigéen la doj góor la nga boole lardu ak jibaalu peera gi noonu mu dellu si naa xalaqnaakum azwaaja boo jëlee guddi ak bëccëg ñoom ñaar per lañu mu dellu ci wa xalaqnaakum azwaaja soo amee per rek dundu dikk bi ci digg bi nag muy wajaal naa nawmakum subaatan ñu def seeni nelaw ñuy noflaay indiwul bi nga xam ne mooy pattam nelaw kon lan lay représenté dee fu nelaw amee rek xam nañ ne yeewu dana am kon dekki fu dee amee xam leen ne dekki moo cay topp boo amee ñaari peer muy lardu ak jibaalu ñu jur dund nga am laylu ak naxaaru ñu jur dund war nga xam ne naw mu it gi nga xam ne mooy dee dana e, ca topp ak dekki mooy su ngeen gisee nelaw rek war ngeen na xam ne dekki dana am buur bi nag nga xam ne moo am kattanu defar suuf si subhanahu wa taala moo fi teg doj yi subhanahu wa taala ñu dëgër téye suuf bu dul ñoom suuf dem buur bi nga xam ne lu ne rek bind na ca groupe lu ne rek bind na ca góor bind na ci jigéen wa min kulli shay'in xalaqna zawjayni la'allakum tadhakkarun waxuma la ci nit ñi waaye mbir mu nekk rek pour mu dund góor ak jigéen a nga ca ni ngeen ko xamee buur bi nga xam ne nag bu ngeen kërti kërte ba sonn moo leen may xéewalu nelaw su ngeen ko bëggutoon sax dana leen dagg moom ci seeni xarakaat ndax subaatu mu ngi mel ni mu ngi am récréation ak sëbtu moo laa dagg ci sa ay activité buur bi nga xam ne it moo jël guddi def ko muy koddaay ni nga xamee ne yaa ngi sol sa yére mu suturaal la guddi lépp loo xam ne mënoo koo def ci bëccëg nga mën koo def mu sutural mu jox leen bëccëg ngir ngeen mën a wuti dund ngeen gis asamaan yi tiim leen ni ñu tollu te amul dara lu leen téye te daanuwuñ kattan googu ki ko am teg ca jox leen jant mu di leen leeral fu ngeen bëgg dem dem lu ngeen bëgg a mu ñorol lu ngeen bëgg a baaxal mu baaxal mu jox leen ndox fayu ca dara muy wàcc ngeen di ci naan waaye mu di leen dundalul seeni gàncax ak seeni tool mu dudd sax ci tool yi wa jannaatin te mënoon a xadaayiq di bàyyiloo nit ñi xel xal janna yii nii ki am kàttanam su leen waxee ne da ngeen dekki mu xisaab leen war ngeen ko gëm boo seetaatee ay it ak contexte ba mu wàcc ak environnement ba ñooñu doon dund am na lum leen di wax ñoom waaye am na lum ñuy wax ñun alam najalil arda mihaada bedawi boobu nga xam ne mu ngi ak lalam yàlla nga koy wax ne ko sa lal bi nga joge mu nekk ci sa bergend mooy tante yooyu ñu daan def nga xam ne tant yi dafay niru bu guddi jotee ñu defa seeni tante dafay niru ak doj montagne yi wal jibaalu awtaadan wa xalaqnaakum azwaajan mu may leen soxna ngeen dugg ci yéen ak seeni soxna góor ñek ak jigéen ñi ku nekk ak jëkkëram waa góor gu nekk ak jabaram ba ngeen ci duggee wa ja'alnaa nawmakum subaatan ngeen nelaw ba ngeen fa nele wa ja'alnaa layla libaasan guddi gi muur leen ba ngeen yeewoo jaal na nahaara maashan ngeen jóg war a doxi seen soxla bi ngeen génnee di doxi seen soxla wa banay naa fooqakum sabaan sidaadan euh, shidaadan ngeen janoog asamaan sim leen tabaxal wa jaal naa siraajan wahaajan ngeen janoog euh, jant bi wa anzalna min almucsiraati maan sajaajan taw bi di wàcc ci seen kaw li nuxrija bihi xabban wa nabaata gis nga boo xoolee loolu yëpp mi ngi mel ni bësub kaw-kaw bi ba mu xëyee dégg nga jóge ci euh, lalam ba guddi dégg nga mu dugg ci biir tàntam wal jibaala awtaadan wa xalaqnaakum azwaajan nekk faak euh, soxnaam wa jaalna nawmakum subaatan nelaw ba bërset wa jaalna leela libaasan ci biir guddi ga wa jaalna nahaara mahaashan war a doxi soxlaam ci bëccëg gi wa banaynaa fawqakum sab'an shidaadan janoog kéemtaani asamaan wa ja'alnaa siraajan wahaajan ak jant bi ko yàlla defal wa anzalnaa minal mu'siraati maa'an thajjaajan ak ndox mi ko yàlla tawal ngir mu di ca naan ak di ci dundee à travers gàncax yi muy euh, saxal mi ngi ñuy wan ne suñu dund gi yëpp kat benn bés la dund gi yëpp benn bés boobu moo tax bu yomal qiyaamee lan la ñuy wax labithna yawman aw ba'da yawm nun de benn bés lañ fi sax ci àdduna wala genn wàllu bés fas'alil aadina yàlla ne ah in labistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun moo tax doomu aadama benn bés rek la am mooy bés bi muy dund benn bés bés bi muy dund ñetti bés ñu ne mooy bi nga juddoo bi nga dundee ak bi nga dee bi nga juddoo mënoo ci dara bi nga dee mënoo ci dara bi nga dundee nag boobu nga moom wala ka saatu lati anta fiha ma madadat li weesu weesu na wal mu amalu xayb suba kumpa la wala ka saatu lati anta fiha li nga am mooy waxtu yi nga xam ne moom ngay moom ngay dund wala ka saatu lati anta fiha kon nag tey ji rek lañu am buur nag bi tuddee yooyu yëpp nag mu tek ca lan inna yawmal fasli naka bésub tàqale ba diggante mbindeef fi kaana miqaatan nekk na waxtu woo xam ne dañ ko organiser programme ko mu nekk waxtu wu ñuy fay jaam yi dem def nañ baax di leen mbugal ndem def nañ musiba yàlla nañu ci yàlla euh, musal nee na waxtu woowu yaw ma yow ma yunfaxu bés ba danañ wal fi suuri ca buftu ba seydina israfil mooy wal buftu ñëpp dee ba mu neex yàlla mu walaat buftu ñëpp dekke wal ñaareel goog nag moom lay wax fi yow ma yunfaxu fi suuri fa taatuuna baax na fa tëtuuna baax na ata toujours dafay ànd ak toroxlu mu neex la naqadi la da nga dikk atayna taa'in tawan aw karhan fa ta'tuna ngeen dikk na génne ci seen bàmmeel yi jëm si ci barabu ate atte bi afwaajan di mbooloo afwaajan di at muxtalifa ku nekk rek ña nga doon àndal bu yowmal qiyaamati buñ leen di pang yéenay ànd dikk seydna muaz ibnu jabal radiallahu taala anhu wax na ne nee naa yow yonantu sallallahu alayhi wa sallam dooma xabaaree lan la yàlla bëgg a wax ci yowma yunfaxu fi suuri fa tatuuna afwaaja yonantu ne ko muaz laaj nga mbir mu mag naka la waxee lool rek moom yonentu sallallahu alayhi wa sallam tàmbalee jooy mu ne yàlla buy pang nit ñi dana leen pang fukki xeet danañ dikk bokk ci ñi nga xam ne ci pang ma la bokk waaye ñooy ñiy perte ci ñooñ pang ma fukki xeet yu bokkut yàlla dana leen ber ba duñ jaxasoog Euh, julliti dafay soppi seen melo buñ leen di pang dootuñ amati melo doomu aadama mu ne ñii yàlla dina leen pang ñu yore melo golo yàlla nañ ci yàlla boole musal ñii yore melo mbaam xoox yàlla nañ ci yàlla boole musal ñii dañ leen pang njëtt seeni tànk ci seeni boole kook seeni kanam di leen diri yàlla nañ ci yàlla boole musal ñoo xam ne buñ leen di pang ñuy gumba ñu xam fu ñu jëm di dang-dangi yàlla nañ ci àlla boole musal mu ne am ñoo xam ne buñ leen di pang dañuy tëx dégg nga euh, lu gumba duñ xam duñ am duñu xellu yàlla nañ ci yàlla boole musal am ñoo xam ne yàlla daf leen di ta euh, pang jamono ji ñu leen di pang ñuy ñëw ca jotaayu wala taxawaayu atte ba ñu ñu ngay dégg nga yëy seeni làmmiñ yi muy yoore ci seeni dënn dëtt wànjar gi di génn ci seen génn ci seeni kanam ñu salte xasaw ba ña dajee ca barab ba yépp dañ leen di seexlu mu ne am na ñoo xam ne buñ leen di pang seeni loxo ak seeni tànk yépp des leen di dagg dañuy dagg-dagge yal nañ ci yàlla boole musal am ñoo xam ne dañ leen di salable mooy dañ leen di pendre ñu nekk ci ay ëkku safara ñu pang leen jëmee ca jotaay ba mu ne am na ñoo xam ne bu leen di pang seen xet moo gën a xesaw médd nañ ci yàlla boole musal mu ne am na ñoo xam ne dañ leen di solol ay jàllaabe yoo xam ne dafa fees ak godoron ñu takkal ko ci seeni dégg nga der yi ci yàlla boole musal godoron bu tàng boobule mu ne am ñoo xam ne noonu lañ leen di pange mu mel ni dañ ko laaj nag lu tax loolu ak ñan ñooy ñan mu ne ñi nga xam ne dañ leen di pang ñu jëm ca eh, daje ba yore meloo golo mooy ñi daa wër di ràmbaaj yow de li la diw wax yow de diw nee na nangam maanaam ngay toxal information pour yàq diggante ngay toxal information jëmee ko ci koo xam ne xam nga ne information bi du ko neex mën na yàq digganteeg ki nga koy toxalal jëmee ci moom bu dee sax dëgg la yonentu mu ne laa yadxulul jannat na maamun ñaareelu groupe bi ñi nga xam ne dañ leen di pang ñu yoree melow mbaam xuux mu ne mooy ñi nga xam ne ñoo daa lekk ger ak di lekk lu xaram yann ci yàlla boole musal ñi nga xam ne dañuy lekk ger te lekk alal ju xaraam mu ne ñi nga xam ne dañ leen a njett seeni bopp ak seeni kanam ñooy lekkkatu riba an ci boole musal mu ñi nga xam ne nag buñ leen di indi dañuy euh, dégg nga gumba ñoo mooy ñi nga xam ne buñ daan atte daanuñ atte dëkk comme gisuñ woon dëgg nanguñ ko woon xool yàlla yi fay jël seen bët yi bu yomal xiyaamate duñ gis ñi nga xam ne dañuy dégg nga tëx lu nag mooy ñi nga xam ne daan nañ jëf jëf yu baax gaa waaye dañ cee gisoon seen bopp mooy lii olof yi di wax xaaw wala xéem jëf jëf lu mu baax baax gisal loxob yàlla bi mooy lii Seydina Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu di tuddee shuhudul minnati maanaam gisal ne yàlla moo la may moo la jox tawfiq ba nga mën a jëf waaye yow mënuloo dara mu ne ñi nga xam ne nag seen jëf dañ ci daan yéemu dégg nga ba gis ne ñoom baax nañu yowmal qiyaamati bu leen yàlla di pang ñu jëm ca daje ba pour mu atte leen atte amagut de yii nii yëpp atte amagut dañuy tëx lu mu ne ñi nga xam ne groupe bi nga xam ne nag biñ leen di pang ña ngay yëy seen làmmiñ yi ñuy yoore salte salte di di génn ba ñëpp seexlu leen mu ne mooy borom mooy ñi nga xam ne boroomi xam-xam lañu woon ak xisakat yi nga xam ne liñ daan wax nit ñi dëppoowul ak liñ daan jëf danañ wax nit ñi lu baax ba nit ñi baax waaye ñoom duñ ko jëfee danañ tere nit ñi mbon ba nit ñi baax waaye ñoom duñ baax yàlla nañ ci yàlla boole musal mu ne ñi nga xam ne nag seen loxo yi buñ leen di pang ñu ngi leen dagg ak seeni tànk yi dagg-daggee mooy ñi nga xam ne ñoo daa lor seeni dëkkandoo dëkkandoo dinañ ko lor ci loxo ndax boo yoree joxuloo ko te mën koo jox yaa koy lor danañ ko lor ci tànk ndax mën ngaa dem ci këram def fa loo fa war def mbaa nga dem feneen def fa loo fa war def mu ne ñooñu nag bu yomal xiyaamate yàlla bu leen di pang daf leen di pang fekk seen loxo yi ak seen tànk yi ñu ngi leen di dagg-dagge loolu la tudd waaye dëkkandoo xam nga ne yooyu mooy yi gën a garaaw ndax wax sax mën nañ caa lor dëkkandoo te moo gën a moo gën a yomb waaye bu nit ki yematut ci wax nag bay jëf kooku c'est extrêmement grave yal na ci yàlla boole musa ala kulli xaal ñiy lor seen dëkkandoo na yonentu sallallahu alayhi wasallam nee ku gëm yàlla ko euh, bés penc bu lor dëkkandoo wax na ne jibril dañul di ma dénk dëkkandoo ba ma foog ne dana ko donduloo mu ne ñi nga xam ne nag dañ leen pendre teg leen ci kaw ëkki safara mooy ñi nga xam ne ñoo daan boole nit ñi ak buur ñoo daan boole nit ñi ak buur li ñuy tuddee les les agents secrets dégg nga nit a ngi fii baax waaye nga dem ne buur kii de mbooloo mi nangam nangam wala diw mi nangam nangam te loolu nag xew na xam ngeen ne suñu réew ma jamono yi yu mel noonu bari na fa te bari na ci àdduna bi da toog fii nekk ci jàkka ñu yónnee la buñ doon yónnee ñun tey ci suñ jàkk ji kuy xool Mohamed Sakho duñ fi yónnee ab pakistanais duñ fi yónnee ab naar ab sénégalais lañuy yónnee nga xam ne danga koy ñeme ba mu jëlal la loo xam ne buñ ca jotee ne ab terroriste nga dégg nga wala ñu interpréter ko nu leen neex maanaam fuñ toll ñu ngi jéem a euh, dégg nga trouver li ñuy tuddee terroriste buñ ko trouver wul créer ko te dëgg-dëgg ñoom ñooy euh, terroriste yi ndax état bu fekk ab dëkk bu mel ni Iraq fa ay million yi nit fu mel ni Afghanistan noonu fu mel ni fu mel ni fu mel ni adduna bi yëpp yooyu di fa xew te yu jiitu yooyu Afrique lañ fa def Europe def ko amerique def ko feneen def ko te ba léegi mi ngi euh, continuer ci beneen anam dëgg-dëgg ñoo ay ñoo ñooy euh, terroriste yi waaye terewut am na ñu ñuy yebal ñoo xam ne ñoo leen di wéelal seen agenda wala sax am na koo xam ne kenn yebalut ko waaye moo ma bëgg lu neex buur rek tax mu di ko booleeg jaamu yàlla yi ñooñu assuaatu binnaasi ila sultaan ñooñu lañ wax ne euh, ci xadis yi Seydina Muaz di nettali ne bu leen yàlla di pang daf leen di pànd teg leen ci kaw ëkk safara mu leen di lakk te xisaab jotagut kat gut mu ne ñi nga xam ne nag seen odeur moo gën a xasaw bu métt mooy ñi nga xam ne dañ daan bànneexu bànneex dañ daan dégg nga bànneexoo bànneex yi ba pare di tare xàqu yàlla ci seen alal yàlla jox la alal yaa ngi ciy bànneexu waaye doo ca euh, joxe xaqam doo joxe asaka ja bànneexu ba nga cay bànneexu yaa ngi koy defee ci anam boo xam ne sa borom tabaraka wa taala bëggut ko ki abal bët fi ko neex nga war a nga war a xool ñu mujj ñi nga xam ne dañ leen di solal ay jàllaabe yoo xam ne dafa fees dell ak godorong boo xam ne dafa tàng mu yàlla boole kook seeni der yi mu di leen e, dégg nga e, torturé mooy ñi nga xam ne dañoo rëy dañoo amoon pugare dañoo amoon nangam waaw e, dëgg la léeg-léeg am na yére yoo xam ne yére aada waaye léeg nit ki mu sol yenn yére yu rëy yoo xam ne eh, dafay yëg ne moom dafa rëy waaw dafay yëg ne moom dafa rëy te eh, yonentu sallallahu alayhi wasallam wax na ne sax yow sol yére bu rafet taxut a rëy waaye eh, bañ dëkk ak xeeb nit ñi mooy rëy te loolu nag am na yenn yére yoo xam ne daf koy symboliser waaye mën na rafet te du xumb ba mu ba mu ëpp yàlla yàlla defaral tawfiq mu ne inna yawma alfasli kaana miqaatan yawma yunfaxu fi suuri bés ba nga xam ne danañu wal buftu buftu bi fa taatuuna ngeen dikk afwaajan di mbooloo yu bokkut ni ko yonentu sallallahu alayhi wasallam waxee wa futixat baax na wa futixat baax na jàng nañ bi tashdidi ñu shadd taagi jàng nañ bi taxfiifi ñu woyefal taagi wa futtixat ubbeef sama asamaan fa eh, kaanat mu mujj nekk moom asamaan abwaaban di boroomi punt pour malaaka yi yëpp wàcc ndax ñoom it foog ñu fekke si xisaab di waaw ñëpp nag ñoom la ñooy jëm ci xisaab wa suyirat ñu mujjal aljibaalu doj yi ñu doxloo leen wa suyirat doxloof aljibaalu doj ñu demee leen wali seeni barab doj yi nga gis fii dem li ko borom waxe dégg nga tubaddalu lardu xeyra lardi wasamawat waaw waaw yow ma tubaddalu lardu xeyra lardi suuf si dañ koy soppi wasamawaatu naka noonu léppay jeex waaw lépp wasu yura doji fa kaana ñu mujj ñoom doji saraban di njunax njunax muy mirage aw ah, walladina kafaru amaluhum ka sarabin biqiatin yaxsibuhu damaanu maan xataa ida jaahu lam yajidhu shay'a wa wajada allaha inda fa wafaahu xisaaba wallahu sariicu xisaab mu mujj ñu mujj ñoom doj yi dëgër dëgër dañuy nekk poussière ba nga foog ni mirage lañ mirage mooy boo génnee ci àll bi ngay xool euh, fek mu ngi naaj waa ngi tàng nga mar seen benn euh, déeg ca digg àll ba nga ne ndoxangale boo yeggee fekk ndeke du ndox loolay junax loolay mirage adduna sax mirage la ñun suñu lépp mirage la ludul suñu relation ak yàlla tabaraka wa taala fakkaane mu mujje habaan euh, saraban di njunax mooy di poussière rek aa nene inna jahannama naka jahannama kaanat nekk na mirsadan di kaso kaso goo xam ne yàlla ko def muy fuklu ñi nga xam ñooy ay noonam ana ñooy ñan la mu ne li taaxina ñeel yéeféer yi nga xam ne eh, dañoo beew ma aban muy seen delluwaay maanaam beew te mi ngi yem ci kéeféer ki bind defal la lépp nga ne ko nekkuloo soo nekkee it jaamuuma la loolu ci la mbewte yam waaw inna jahannama kanat mirsadan li taaxina ma aba bakkaar gënta garaaw kéeféer waaye mbugal gënta bon gënta metti jahannama yal na ci yàlla boole musal laabithiina way sax lañ fi xaa ci jahannama axqaaban ay jamono yu yàgg yoo xam ne amul doyo axqaaban gi jamono xuqub dana am ci boroom xam-xam yu wax ne safara li mu yàgg-yàgg dana toog ba jeex waaye daal Euh, du loolu mooy li xew d'après li ëpp ci boroom xam-xam yi da xaalidina fiha abadan waaw waaye nag ñi axqaaban gi la ñuy jël ak ma daamati sama wal wala waaye loolu arab daf koy waxee te nu arab di waxee rek ah euh, euh, naka la tuddati alquran dana ko waxee dem fekk ci kaso ga koo xam ne dañ ko condamné à mort nga ne ko sa waayoo da nga fi yàgg de danga fi yàgg firiwul ne da ga génn bala nga dee waaye doo fi jógeeti laabisiina fiha ahqaaba te foofu nag dee moom amu fa waaw dee ci boppam dañ koy rey bu ñëpp duggee aljanna yàlla nañ ci bokk ñëpp dugg safara yàlla nañ ci mucc yàlla dafay indi dee ci forme am kuy ba ñëpp di ko gis ñu rendiko ko waaw kenn dootul deeti bu defee nag ña nekk safara yàlla ne laa yazuquna duñu mos fiha ca safara bardan nelaw bard mooy sedd waaye nelaw ki nelaw fàtte na mbugal dootul yëgati tax du ko mos wala sharaban du caageenu naan ah illa xamiman lu dul nag naan goo xam ne ndox mu tàng lay doon wa xasaaqan ak dëtt wanjër ah jazaan muy ak fay goo xam ne wi faaxan dafa dëppoog liñ doon def waaw bakkaar gënta day kéeféer waaye mbugal gënta bon safara maanaam ñi nekk safara danañ mar-mar moo xam ne di yuuxu di jooy ay junney at ñu soog leen jox ndox mu tàng moo xam ne buñ ko naanee seen butit yëpp ay génn ndox maa gën a tàng safara waaye taruk mar ma moo tax fokk ñu naan ko laa yaduquuna fiha bardan wala sharaba illa xamiman wa gasaqa jazaan wifaqa lu tax innahum ñoom kaanu nekkoon nañ layar yarjuuna duñu ragal xisaaban xisaab ñoom jàppoon nañ ne kenn du leen xisaab yàlla ne kallaa sa ya'lamu humma kallaa sa ya'lamu weddi gi weddi woon xisaab moo tax yàlla ah xam naa ku mel Baro mi ngi naan laa yarjuna rajaaw lay firi waaye yarjuna fi ragal lañ koy firi kaano laa yarjuna xisaaba wa kaddabu danoo weddi woon ñoom bi ayaatina suñu alxuraan ji kiddaban ak weddi boo ne bi ayaatina alxuraan ngay njëkk a def ngay ngay jël comprim euh, mooy primary li weddi lii waaye nag lépp luy siñu yàllaati hmm. mën nga ca mën na caa dugg wa kulla shay'in lépp lëf ahsaynaaw takk nañ ko kitaaban cib téere lépp nga lawxul mahfuz amul dara lu échappé yàlla su bindu sax du fàtte rawatina su bindee dana binduloo malaaka yi dana enregistré loo suñ cër dana ko enregistré moom te moom lépp la xam nga xam ne kon kenn du mucc kudul ku yàlla muccal wa kulla shay'in ahsaynahu kitaaban wax na ca suratu yaasin ahsaynahu fi imaamin mubin wax na ca suratul infitar wa inna alaykum la xaafidin kiraman katibina yaclamuuna ma tafaal wax na it tamit ne yowma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kaanu yacmaluun làmmiñ yi loxo yi tànk yi ñëppay seede keroog wax na ci surat euh, Fussilat wa qaalu li juluudihim lima shahidtum alayna der yi nga xam ne ñoo leen am luñ def ñu ngi koy enregistré bés bu ñu waxee parce que tey ñoo leen yilif mën naa am sax ñu ngi ñu rëbb waaye liñ bëgg rek la ñuy def bés bi suñ kilifteef jeexee ci ñoom nag ñoom ñu révélé liñ defoon yépp bu ko defee ñu nit ñu mer yéen xam ngeen ne ñoo bokk jëm fuñ jëm lu tax ngeen di wax li ma defoon wa li juluudihim lima ma shahidtum alayna qalu antaqana allahu alladi antaqa kulla wa huwa xalaqakum awwala marra wa ilayhi turja'un wa bi ayatina kidaaba wa kulla shay'in ahsaynaahu kitaaban lépp ngi fi ma denc fa dhuqu buur ne danañ leen wax ñoom ñi doon weddi xisaab gannaaw buñu leen xisaabee muy kallaa sa yaalamuun summa kallaa sa yaalamuun gi mooy mbugal mañ doon weddi danañ leen wax fa zuqu mos leen nazidakum duñ leen dolli illa azaban lu dul mbugal ci kaw mbugal lu dul mbugal ci kaw mbugal lu dul mbugal ci kaw mbugal yàlla nag fu mu indee jalaalam rek buy pare rek mu teg ca jamaalam ngir bañ ñu xal ko fu mu indee mbugal rek buy pare rek mu teg ca lam dencal ay xaritam kon nag yal nañu yàlla boole ñun ñëpp ci ay xaritam lim ñu dencal incha allahu ñu bàyyi ko ba suñ dajeeg yéen suba bi idnillahi tabaraka wa taala hada wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi al azim xaji bab fadilatu imam kon nag ñu tek foofu suñu baaraam di gërëm ñi doon seetaan ak di ñu déglu di leen jox dig daje ba ëllëg ak jàmm salaam à 3 pm Eastern Standard Time wa ahiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah salaamaaleykum wa wa rahmatullah juzita xayran wa kufita charran jërëjëf ok jërë ngeen jëf j'espère que kenn rek du ngeen ma téye ah kon baax na kon ñu koy amin wa iyaakum amin kon ñu denc ko ba suba ak jàmm incha allah comme tey dañu doon eh, tàmbali jazakallahu xayran ya imam amin thank you very much aja fatima thank you xam naa sëñ sëñ Pape dafa war a am ak man enregistrement moo tax gis nga ni mu kattale affaire dara mën na ci enregistrement bi aussi ndax